donc di leen gërëm bu baax di leen sant gis naa fi ay ay ay ay ay ay ay yoo xamante ni tax na ma gën a sant suñu borom ci Sénégal ku leen jox ngeen doxal ku leen jox rek ngeen doxal donc bu leen nekkati ay chair à canon bu leen nekkati ñoo xam jëfandikoo bu leen nekkati ñoo xamante ni lañ leen di jëriñoo taxaw leen am yitte bu mat sëkk yitte bu rëy. xam ne loolu ñuy wax sànq ne moom tudd ko muy territorialisation des politiques publiques mënul am loolu dañoo am un capital humain de qualité dans des ressources humaines de qualité au niveau des collectivités locales aimez vos localités vivez pour elles waaye désormais jàpp leen ne def dara sans yéen bu ngeen toogee nag jàpp ne dañoo war a def ñoo jox leen luñ leen jox rek ngeen jël waaye bu dee da ngeen a jàpp ne nag jàpp ba fa ñuy mise en œuvre amaat possibilité évaluer su boobaa prenez votre destin en main je ça ça me semble extrêmement important ak fii nga xamante ni foofu la ñu jëm te du leen yàqal dara donc di leen gërëm bu baax di leen sant kontaan bëggoon naa jaar ci ay tur waaye du ma ko def parce que boo ko rek dafay metti mais di gërëm bu baax waa agence te ne bon wax nañ dëgg de yàlla xam na ne bu doon xaalis rek du ñu ma jox du ma jox duñ ma ci boole tamit parce que aw ma xaalis bu doon tur tamit am na ñu ma ko ëpp ëppale bu fekkoon ne tamit euh, euh, dafa am leneen lu ñuy seet rek kon tey jii du ma taxaw fi di wax mais dañu juger utile ne gis nañu Papa Djibril Fall il est en train de faire des choses dinañ ko mettre dans une dynamique dinañ ko dimbali pour mu gën ko mën dañ may dimbali rek pour ma gën ko def pour ma gën a mën a am taxawaay. donc di gërëm bu baax a baax waa AGS à part président Amadou je l'ai vu hier démb laa koy doo ko gis ci laa koy doo ko teg ba donc di ko gërëm bu baax ci xam ne kilifa la bi ma dajee moom rek xam naa ne kilifa laa dajee di gërëm bu baax Khalil Mbodj moom c'est la générosité personnifiée bu baax la ku yéwén la li gën a jafe mooy wax sa baaxu lu jafe tamit ci daraja dafa jafe lool Euh, donc di ko gërëm bu baax di gërëm euh, ñi nga xamante ni moom mooy le représentant du parrain maa ngi koy wax léegi ne ko le parrain xaw ma ko Cheikh Ahmed Tidiane Ba xam naa ko de loin waaye xam na ne di ku yaru la très mesuré ku pondéré la et je pense que c' est de ça dont on a donc di gërëm bu baax euh, Fall Alioune di gërëm bu baax Néné Diallo mm-hmm. di ko masawu encore mu ngi nii toog bi yaayam génne àdduna ak léegi defagul fan yu yu yàgg. waaye ku bëgg réew mi nee na jàll bi ñoro la dëkk les rares fois les yi ma ko gis réew mi lay waxtaane ak ñoro donc loolu c'est extrêmement important tey jii su ko neexoon ne sama yaay dafa génn àdduna mu toog ñooro waaye ba ñu defee farata ba ñooro ba pare la la la jógee foofu ñëw ànd ak ñoom ci liggéey bi te aujourd'hui mën naa wax ne c'est la cheville ouvrière ah oui de cette affaire là et discrètement discrètement mais efficacement. waaw ah, donc nee nañ on est de tout cœur avec toi di ñaanalaat soxna si suñu borom yeesal yërmandeem ci kawam te yàggal sa xam ci sa loxo yow nga gudd fan lool li mu li mu yéene woon ci yow suñu borom defal la lu kawe sa njort di nuyu aussi Abdoulaye Ousseynou Anne Amdi Barham ñooñu suñu njaboot lañu donc nekk ay xale yu xamante ni macha allah foo takk dayo bi nit am na cinquante ans te accomplir lu ñoom la ñu accomplir. donc mu nekk lu am solo nañu continuer nii rek nañu am une solidarité de génération nañuy jàppalante nañuy dimbalante kenn ku ci nekk lu mu xam wala lu mu mën na ko dimbalee moromam ñu bàyyi di rendiwante fu ñuy waxee lu ñaaw benn jeune bu ko benn jeune fekkee ku mën a waxal jeune benn jeune lu rafet na ko ko waxal ñu gën a jàppalante ñu gën di ànd di yëkkatee doo di dóorandoo nous avons un destin commun donc il faut ñu comprendre ne mooy li may sa malade wax léegi bu ñu noonoo bu ñu noonoo yenn saa yi gis kuy snap naan xaw ma lan samay noon fekk ne moom mooy noonu boppam waaw moom mooy noonu boppam mooy le Daichi là bu nekk Côte d'Ivoire nu mu tuddati kii décédé ki ki nekk ki nekkoon ci beneen groupe rappeur yi. damay fàttali tur mais benn grand la daf ko wax ne ko defal attention yaa ngi jàpp ne da bëri ay noom ñi nga àndal la Chine ñoo ngi lay gëm loole da nga bëri ay ennemis mu ne ko yow yaay seen ennemi bopp te boo deful attention di nga détruire sa bopp kenn teg defuñu ci un ou deux bi rey boppam une grosse perte pour la culture africaine une grosse perte man damay toog ba ba tey jii mënuma réaliser des des une grande âme un brillant mais xool ko ay ay ñàkk solo mu rey boppam donc nañu jël conscience ci loolu suñu propre ennemi c'est nous d'abord il faut que ñu juróom suñu bopp d'abord waaw mais tey ma détruire nit tey ma rey nit wala ma kontaan ko maa man Pape Djibril Fall je peux me réjouir aujourd'hui du malheur des autres hmm? su ma ko mënul dimbali ci ambition gayeer mii tey su ma ko mënul dimbali ci ambition yi mu am du ma ko faagaagal du ma ko def je vais l'aider loolu la ñëpp war def xam ne gars yi tey bu eggee ñun ñëpp ñoo egg mais bu échoué ñun ñun ñoo échoué waaw Anta Diagne tey war a nekk maire tey nan la wàkku mbur la wàkku mbur na dañu war a jàpp fexe mu nekk maire ah nga buñ de dajewaatee dinañ am un jeune maire des jeunes députés assemblée nationale ngi ñëw gayee mënut a ñàkk dem assemblée nationale par exemple mais dañ négocier vingt est-ce que c'est réel quoi. Ah, <laughs> est-ce sax donc euh, di leen gërëm baat leen sant di ñaan yàlla mu defal ñu sutura ba ñu dajewaat fii beneen yoon di leen gërëm bu baax di leen sant di leen wax ne désormais man da ngeen may def membre agence incha allah euh, saa bu ngeen gëstoo rek di ngeen ma gis dinañ leen buggee ci lu ñu mën ak lu ñu xam ba ngeen mën a atteindre seen objectif yëpp incha allah. merci beaucoup merci beaucoup euh, donc. ñu ngi lay remercier tey nag kii bi daal activité lu ma ko war a touché trop daal. non damay gàllankoor non tey du ma jooy tey du Sorano tey du ma jooy mais en tout cas grand bi ñu ngi lay remercier remercier sama frère yi njëkkee ko si Pape Oumar moom deux heures la ma invité. biñ def bi ma ba pare boobu ba léegi ñu bokk kóllëre day wàcc ma ne ko booy foo nekk mu ne ma maa ngi nii soog a pare émission par mercredi mercredi passe dama koo jël ànd ak moom ànd ak moom ba ay minuit je pense que jour boobu ñu ngi déggante man ak moom ñoo nekkoon ak Dior Gueye ak SG mu nekk ku disponible dëkk ba Rufisque vraiment te saa buy dem buy ñëw daal ak ak ak xol la koy demee gars yi aussi di ko remercier démb bi ko doon tooñ fii ko dañu waroon marié fi démb bi nga sotti waaw mu ne moom man ñi ma war a takk dafa bëri ah mais man damay def nag kii loolu ñu koy xaw ma nan abusif waaw waaw polygame nga waaw remercier aussi Ablaye Seydou Anta tey laa ko découvrir mais je l'estime bien parce que ku baax la vraiment ku ku bien la te li muy woote coach bokk na coach yi nga xam ne tey jii ni mu wane woo entreprenariat te nekkoon ci vraiment dinañ def ak e yow yeneen séminaire sur le développement personnel yeneen conférence incha allah mon frère mon homonyme moom it ko loolu mi ngi dugg bi euh, ñu nekkee Vibe Radio alors comme ñun ay xale la mais nañ xaw am waane tuuti mu sol grand boobu boobu ba léegi nag mu topp ma si grand boobu bi donc waaw waaw soo liggéey nag waaw ak su liggéey parce que su fi def na ko man amul laa bëgg donc boobu léegi mi nga lay bokk donc vraiment kontaan jeunesse bi maanaam ah, suñu orateur yi Mouhamed Mballo Seyni Adama nga xam ne mooy sama troisième épouse ak ñi fi nekk ñëpp tey jii ñu leen di remercier vraiment di kontaan seen sama membre yi nag ñii moom aw ma seen fay ndax benn personne mënul def dara benn personne mënul mënul mënul yëkkati sax table bi yow mais da ngay am ñoo àndal ngeen di liggéey di coordonné vraiment sama membre yëpp maa ngi bëgg ñëpp tàccu leen defal leen seen amuñu seen mbir vraiment baax nañ sonn nañ mais nag du ma tudd tur ndax boo tuddee rek di nga am koo fàtte donc fu ma jiite lay EG Ibrahima Khalilay Mbodj nga xam ne sànq Pape Djibril daf ma ne yéen nag am yow nag am nga EG ma ne ko lay wax bu yàgg yow da ngay décourager lu baax li mu lay waxal tellement que day bëri mais nag loolu baaxam na ak yaatu na EG vraiment merci partenaire yi ñu àndal muy Radisson nga xam ne. activité bi ñoo ko yombalal rendre ñu ko accessible ñu suñu partenaire en Ndiaga graphiste nga xam ne visuel yi ñu defal képp ku ko bëgg euh, nga xool Ndiaga contact am ñu ngi fi. remercier aussi suñu partenaire suñu parrain Cheikh Ahmed Tidiane Ba ah, ak ñu Atouma mi suñu frère Pape Sow nuyu ko bu baax a baax ñu ngi moom moom daal ci équipe bi la bokk tamit day laa tudd mais équipe bi la bokk donc remercier partenaire yëpp ah, ñi ñëw ñi fi toog ba mu jeex amuñ fay.